audu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim barki borom tubaa eh, ñu fas yéene yëkkati ay kàddu ginnaaw tooñ bu rëy boo xam ne kooku ñu naan Omar jaañ daf ko tooñ daf ko tooñ yoonu murit lii ñuy wax nag ci ndigal lañuy waxe ndax eh, jëmm jooju di Omar jaañ dafa mel ni am na lu ko tax a jóg ndax lii du guléet dafa mel ni atum deux mille yëkkati woon na kàddu yu xëtt teggin teg ko ci yoonu murit mooy ba mu génnee ci vidéo bu tasaa bu mu tasaare ci réseau sociaux yi di wax ne sëriñ bi muy Cheikhul Khadim ci ndigalu tubaab bi la daan um koor te ci ndigalu tubaab bi la daan dog kooram te loolu di xëtt teggin yu ñaaw a ñaaw a ñaaw jëmale ko ci ku tedd ki ndax Serigne Touba ku ne xam na ni bind na te jëfe na ni moom ndigaru boromam képp ci la doon jëf ci ndigalu boroomam képp ci la doon jaamu boroomam mu def ko daal di wëlbatiku ne sëriñ Touba collaborateuru tubaab bi la woon te ku ne xam ne bañ bi sëñ bañoon tubaab bi ne ko l'islam du fi am sëriñ bi ne du fi jógati moo waraloon sëriñ bi ñu yóbbu ko ci tukki boobu yi waral màggal gi tey bañam boobu yi moo waral tubaab bi yóbbu ko Mauritanie bañam boobu yi moo taxoon sëriñ bi yóbbu euh, tubaab bi yóbbu ko ca yéen jolof bañam boobu yi moo tax tubaab bi yóbbu woon ko ca njaareem ba sëñ bi làqu muy 33 ans yoo xam ne tubaab baa koy xañ liberté kon sëriñ bi bu bañul woon du génn réew mi Tuubaa goog lay toog ñaari yii di ñaari tooñ yoo xam ne waraloon na association bi ñu naan xuddamul xaddiim déposé woon plainte fële ca tribunalu Mbàkke atum 2021 waaye furaas kenn faalewuñu ñun murit yi ñu wëlbati ko waat Omar Diagne ci atum 2022 mu génn benn publication ci YouTube nga xam ay junniy junniy nit gis nañu ko mu tuddee ko addiya à milliard daa di tuumaal yoonu murit wax kàddu yu ñaaw ci biir kàddu yooyu mu ne te lépp ngi ci ay vidéo mu ne ma euh, taalibe yi dañuy profitoo ci màggal gi ak gàmmu gi di jox ay koppar yu takkoo takk yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci ci ci alal bu lënt di ko jox sëriñ si sëriñ si di def loolu ñuy wax blanchiment di ko weexal maanaam di ko dugal seeni compte te sëriñ soos yi dañ ci am ay commission yu euh, dem ba 10 pour cent wala 20 pour cent loolu di tuuma ju ñaaw ba mu waraloon fanweeri sëtu Cheikhul Khadim ak juróom joxoon ma seen ndigal ba ñu déposé woon plainte fële ca dig waaye furaas mu mel ni kenn faalewuñu ñaari plainte yooyu nag jiitu woon te jëmoon ci jëmm jeew ji di di euh, Omar Diagne ba ñu classé ko sans suite wala en tout cas amul dara loo xam ne benn jéego boo xam ne maanaam kilifa yi taxaw nañ ci ngir tooñ boobu mën a dakk faw tax na moom it mu wéy ci tooñ yooyu waaye sëriñ Touba nee na kuy tooñ du mucc ci fan yi weesu sëriñ Touba ku tedd ki ne karaamati xattu yadi maanaam sama mbindum loxo mooy sama karaama te ku ne xam ne ne karaama mooy miracle miracle kon lu mucc ayib la moom mu ne mbindum Serigne Touba des na ko nattable ne mbindum tër mbindum Serigne Touba des na ko càmbar ndax war naa am ay erreur yu ci ne. kon loolu di tooñ bu rëy a rëy ko ci Serigne Touba ndax lool yi bu ko waxee dafay juuyoog dafay juunu lool ak waxi sëriñ bi dafay weddi sax mbindum sëriñ Touba mi mu ne karaamati xattu yet yi. kon muy tooñeel bu rëy boo xam ne ñetteelu tooñ a ngi nii te Serigne Touba nee na ku tooñ du mujj ñuy xam leen nag ñun murit yi ay sénégalais lañu tooñuñu kenn duñu tabax jumaa ba ne diw ak diw ak diw soxla nañu ngeen jox si joxe seen dërëm ñooy tabax suñu jumaa murit yi ñu ñooy màggal suñu màggal murit yi ñooy gàmm suñu gàmm te amul kenn koo xam ne nekk nga senegal di jëfe sa sa diine di dund sa pas-pas ba ñun murit ñu yëkku ci ay kàddu teg ko sa der waaye nag dafa mel ni jëmmiñ yi di Omar Diagne dafa mel ni am na lu mu ŋànkal yoonu murit ndax dem na ba ci vidéo boobu yu ma wax sànq bi nga xam ne fanweeri setu Serigne Touba ak juróom jox nañ ma ndigal ba ma déposé plainte mu ne Touba mooy plaque tournante de la drogue maanaam Touba lii di sineebar njaayum Sinébar fa la wullee ñaay loolu Omar wax na ko ci yoonu Mouride damay fàttali rek ndax ñu xam ne kii tooñ yi du tey la tàmbali ñun nag communauté Mouride jóg nañu. man mii ci wookaay yi nga xam ne ndigalu sëriñ bi laa am ngir képp koo xam ne yaa ngi xëtt teggin jëme ci sëriñ bi jëme ci mbindam jëme ci lépp loo xam ne mi ngi fàttali yoonu murit lépp loo xam ne pas-pas yoonu murit la ñu taxaw ci ngir loolu dakk faw ndax ci réew mi lañu bokk bu buñ ci bokkul nanu ko wax ñu jóg nag tey jii ngir lépp loo xam ne yoon may nañu ko ñu def ko ñu jóg tey jii ngir autorité yi xaw ma yëg nañu plainte yi xaw ma yëguñu ko danañu ko yég incha allah ndax danañ leen bind ba taxaw xool ndax ñoom dañuy bàyyi Omar Diagne ñu wéy te mu wéy ci di tooñ yoonu murit wala ñoom dina ci jóg ndax ndax ngir dakkal loolu kon nag kàddu yi laa waxu ne dina ko jibal xam ne ñun yoonu murit taxaw nañ faw te du ñu bàyyi mukk te lii saafarawul ndax moom mii am na sax ñu ko ne jéggalul moom mu ne du jéggalu mun taxaa du jéggalu benn yoonu murit am ñu génn tontu ko ci xam-xam mu génn ne ñooñu ay mbaam lañu ay golo lañu kon kii dafa mel ni bëggul jàmm yéen ni nga xam ne nag yéen a jiita Sénégal am ngeen responsabilité ci cohésion nationale maanaam jàmm sax ci réew mi. jàmm nag lii tax mu sax ci réew mi mooy ku nekk fonk pas-pasu nit kenn bañ a xëtt pas-pasu nit képp koo xam ne gëm nga li nga gëm te l'islam bi Omar Diagne lu mu gàtt gàtt xel lu alliwaam gàtt gàtt gàtt. lu aliwaam ñàkk-ñàkk sori war na xam ne lakum diinu ku mu diin mooy ku nekk nañ ko bàyyi ngëm-ngëmam nañ ko bàyyi li mu jàppee ne mooy diine mu jëfe loolu ba ñu dem fa suñu borom kon nag lii laa doon wax muy ay kàddu yu gàtt xam nañu taxaw nañu ñun murit yi taxaw nañu ñun communauté murit ci ginnaaw bañ ci amee ndigal ngir topp lii ba Omar Diagne tooñam yi dakk ba faw asalaamualeykum wa rahmatullah